non non damay xool ñi nga xam ne amuñu ticket. non fii laa ko daggee. waaw sant nee na ca la dugg wala xale bi. te ba léegi rek ñu ngi fii ah, gis nga ci buntu Grand Théâtre amul daal bi am rang bi ba léegi rek nga xale yi ñoo sant macha allah sant lu amul fenn lañ def xale yi ba léegi rek gis nga buntu Grand xale yi sàcc ba mu bëri doole lii moo fi am. ñaa ngi daw dañoon at ñi dañoo tàggul seen i far ñi tàggul seen jëkkër gis nga lépp rek ngir waali tey wala xale yi liñ sañse wala ma xale yi liñ sañse xoolal ma xale yi liñ sañse macha allah lépp rek waale ko waral nee nañu xoolal ma xale bi mu def xoolal ma xale bi mu def cëm xam nga lii tam lii dara fayu ko lii xoolal ma yi sañse xoolal ma rab ruus bi cëm xoolal ma xale bi def ci tubay xoolal ma ko rek te te te xam nga lii de moom i laa gis soxna Aïdara boobu la sol démb madame Seck démb premier temps bi la sol démb suba bi la sol démb non si la sol démb xoolal ma xale bi mu def cey waal cey gone gi kii keebu ñaanal ko de nangu leen yàlla dogal keebu ñaanal ko barke Serigne Salim keebu ñaanal ko de yow doom may sokola yow sokola waay la jaay katu kafe ñëpp a ngi ci biir cey waali police yi police waali yi ñëpp a ngi ci biir cey la Fara Mareen. lii cey waali xale yaa ngoog de kenn waali lii yoon na mën waali nag. la ko jaar kon na mën de la ko jaar moo ko jaar mais kii daf may niroog soxna ay dara maram maram sekk la may nirool de. a rakam la wala kan la. rakam la. tey embouteillage bi am tey. yaa ngi daw du nekk nekk ah il est vingt heures maintenant instant yii mais rek fii tey tey tey Waly tey gone gi Seck tey Faramaren bi tey Faramaren bi foog naa ma si na tey. ñeen tàngoowuñ kii bisu ngoone ah bisu ngoone cum bisu ngoone laa tegoon bisu jagana laa tegoon ñoo niroo ñoom ñaar cey tey gis nga de li fi am tey macha allah gis nga li fi am tey xale yi yow sañse na mën waali balaa ko fekk ñu toog un an ma grand dafa galant dafa sañse dafa namoon waal yi xool li mu sañse kaw ba suuf mais grand yaa mën a kase kenn du yow xale dañoo toog un an huit mois gisuñu waal yi xool ma xale yi ñu def ci tubay mais tubay bi la soxna Aïdara bi la soloon démb comme tubay bi la soloon démb soxna Aïdara moom la xale yi sol tey mais yéen xanaa dañoo tàggoog madame waal yi bi maa ngi jàmm rek ambulance bi dara du xew jàllal rek ambulance bi dara du xew allah xale bi moo woote muy Fra Marème bi jàmm rek ay am embouteillage bi bëri na vraiment mais nag jàmm rek ay am am gis nga de jàmm rek ay am ndeysaan mais xale yi dañoo tokk mën tokk naana lépp ci waal yi tey vraiment ñoo mën bés wala ma xale yi ñoo mën bés ñoo mën bés ndeysaan ta ñi tàggu seen jëkkër ñi tàggu seen i far ñi tàggu seen fa tàggu seen jëkkër mais xale yi sànq nañ en tout cas sànq nañ xoolal ma xale beeg rob bi cay lii xoolal ma xale yeeg rob bi jaaykatu ndox yeeg jaaykatu boisson mu xew leen ñëpp gis seen bopp. rang bi de moom mënu borom jaaykatu café yeeg ñëpp a gis seen bopp tey cay waali moo yaa ginnaaw de xale bi borom moo yaa ginnaaw de. borom jaaykatu kafe yeeg jaaykatu kafe yeeg jaaykatu was yeeg jaaykatu yor seen i photo waali xoolal ma yor seen i photo waali xoolal yor photo waali xoolal lii xoolal lii tey la faxamaa de faxamaa ren bës waaye nangu leen waay yàlla ko fi teg yàlla moo fi teg fii ba rond-point ba laa ma da ngay gis but ba but barke Serigne Touba but ba but xëy dom day naka la gis nga bi ba ca rond-point ba man cey la faxa maa de faxa maa xeen cey Wally Ballago Seck xale bi ma rang bi rek non dama sonn dama dox ba sonn instant yi naa grand théâtre di wéy maa ca rond-point ba ma egg Colobane rang bi ba léegi rang bi presque egg na Colobane wallaay bi ah. tey tey xale yi mais waxuma loolu man mosuma gis xale yu mel nii xale yu mel ni tàngal mais sañse yi gars yi ñu ngi sañse ay semis yu blanc def non mais man ma non mais lii lan la non def leen lu leen neex lekk leen caagri dem waale woy leen woy lu neex barke Serigne Sa yi son yu bees tàkk spectacle bu garaaw surprise incha allah ci kattan yàlla waal neen ko defal waaye man dama son nag maa ngi tourné instant léegi ma egg Colobane ah mais xale bi xool ma xale bi ni mu ci robb xool ma xale bi ni mu fal tamit lii tamit dëgg la xool ma gars yi jantal gars cim ah macha allah jantal police ñoo jàpp ci liggéey bi tey ba mu yemb macha allah xool ma xale bi li mu robb cey ma waa cim cey sama gars yi waali moo mën bés xale bi waaye na ngeen ko ñaanal waay ñeneen jaay gan ndox yeeg ñëpp a jéggi seen bopp barki Serigne Saliou waaye damay tourné dama sonn de maa ngi léegi cey sama gars yi ah. cey xale bi waale yi kenn du moom xoolal ma xale bi ñu sañ se seet tubaab amul fii de cey xale yi rang baa ngi nii mënoo fexe ba egg ca gis nga rond ba macha allah lépp rek waali sonn naa nag damay tourné lii moom mënu ma egg di wan fa mu yem cey waali cey xale bi cey xale bi jaaykat yeeg crédit yeeg jaaykatu café yeeg jaaykatu was yeeg jaaykatu ndox yeeg ñëpp tey day dañuy gis seen bopp ci waali cey moo yaa ginnaaw li ñaan oto daa yaa ginaaw mais waali moo yaa ginnaaw cey ñi dundal te xamul te ñi mu ne te gisu leen aka bari mi ngi baax mu ngi baax mu ngi